malakani ljaamiu yowma aljumua maa li wax dixtaarahu wa jamaa bisimilah barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi seetaan ci réew mi ak bitim réew mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di leen ndokkeel am mbégte ànd ak yéen fii ci Touba euh, ci euh, ñaareelu ajjuma ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jëwriñ ñi Xaadim Rasoul yàlla na fi yàgg loolu te wér nim ko digle woon ci ajjuma bee ñu romb ajjuma tey bi noonu lañ ko amee bi juróom-ñetti waxtu jotee fii nga xam ne mooy diggante jullikaayu it bi ak jumaay ji jàpp armel yi ni ngeen ko gisee bàyyi Fall yi ñëw nañ fi tàmbali si kër si niñ ko waxee woon sax ci communication yi jiitu fii la ñu fanaan si waajal lépp rek ngir waxtu wu jotee ñu tàmbali ko ni ko sëriñ bi bëggee kuréeli si kër yi bàyyi ko nañ ci ay gox fasantikoo ci biir réew mi ba bitim réew ñëw nag di yëkkati turu yàlla wi noon ngeen ko déggee la ilaha illallah ñu gis tam yeneen mbokki taalibe yi ñu ngi yor ay café di ko séddale ñeneen ñi nekk ci ndox yi ñeneen ñi nekk ci bernde yi lépp tàbbi ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké niñ ko defa woon rek lañ ko fas yéene defaat léegi zikr saa ngi nii doon ay sàppe yu yaatu ay kuréel yu yaatu ngir sàmbal suñu borom kañ ko tàgg ko ci baatub la ilaha illallah bi nga xam ne nii ku ko dégg sa xel day daal di dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina kon ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ni ñu ko defee woon keroog rek dugg gis kilifa yi jëwriñ yi ngànk liggéey bi ak lépp lu aju ci ndigal li di leen fàttali ne juróom-ñetti waxtu lay doon ba fukki waxtu wala fukki waxtu ak benn buñ ca noppee xasida yi door tàmbali nag ci euh, kuréel jamono yi ñuy wax ak yéen ci biir jumaa ji durusum alxuraanul karim mi ak xasida yi noonu lañ ko daal di tàmbalee incha allah tey jii nag dinañ dem ci ay gox yi fasantikoo lu ci mel ni ay daaru xuddoos daaru minan ak yeneen penc yi nga xam ne nii ay penc yu mag lan di dundal ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké fii ci tubaa di ñaan daje ci ak ngërëmal sëriñ bi waaye moom sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér yàgg koo digle mbokk taalibe yi yàgg koo jëfee kon ba ci kanam tuuti dina yaatu ku ci a ngi ci sikar si tey jii ni ko sëñ bi digle woon tey la ñaareelu ajjuma bi kàddu yu ci tënk. waaw sant yàlla rek di ñaanal Cheikh Amadou Mountakha mu yàgg fi te wér waaye di wax ne sëñ Mountakha yàggam fi njëriñal jullit yëpp la même ñi di jullit sax seen i njëriñ la waaye di ñaanal jëwriñam yi sëriñ am di Modou Mbenda Fall ak buntu kër Serap Fall yëpp fukki buntu kër ak benn ñu leen di ñaanal ndax sëñ Mountakha kat li mu mi rek la ndax jëfe ndax Baye Fall moom ndigal rek maam Cheikh Fall denoon Sëñ Tuubaa dinaa la jox sama lépp waaye sama yaar yi du ma la jox mooy sama jom ak sama ngor waaye di ñaanal ñi ngi ko teg ci seen loxo maam Cheikh Sikirulaa moom Cheikh Sirif Assane Fall ak ñoom sëñ Daam Sooda ak taalibe yi nga xam ne ñi nga ñoom ci liggéey bi buñu limee dañuy juum di wax ne lii moom tawfeex la rek fii ba màggal nga la wax ndax sëñ bi moom Baye Fall la ndax képp ku xam ne maam Cheikh Fall ak digganteem ak Sëriñ Basiru waaye diggante bi njabootu Serigne Touba gépp nga xam ne lii rek moo war a nekk. tey ñoo ngi fii rek euh, ci euh, diggante jumaa ji ak euh, jullukaay it bi bërëb bi nga xam ne foofu la bàyyi Fall yi di jëfe ndigal li ngeen gis kilifa yi ñëw nan sëñ Gunda Fall di jëwriñ yi Serigne Bassirou Fall alxuraan ànd na ak mbooleem taalibe yi ñëw fi nga xam ne nii moo di bërëb bi. toog di teewlu zëkkër bi ànd ak mbokki taalibe yi ñu koy ziar kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di leen leen ndokkeel ay kaddu rek jëmale ko ci ndigal lu li nga xam ne ni tey gisaat nañ ci taxawaayu njabootu maam Ibrahima Fall. mu ngi leen di fay tey di nuyu Cheikh Mamadou Mountakha te di ko siyaare bu baax baax di ko ñaanal sama borom bàyyi ko mu yàgg fi di ñaanal xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall mi suñu am ni muuru mbenda sama bàyyi ko fi ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu yëkkati kaddu yii nag ci ndigalal sëriñ Cheikh Fall Cokke mi nga xam ni mooy. Euh, fi nekkal Serigne mbakkebaal nekk ci sunu kanam di sant bu baax a baax di sant Serigne ci woote bi nga xam ne woote na ko te dara taxul bëgg a dimbali jaam ñi ak it jaam ñi gàggantiku ba delluwaat fañ newoon ndax jamono ji mel na melakaan woo xam ni lu mel nii rek mënul ci mën a dimbali ah te yéen nit ki nag yàgg yendoo koo tuddloo yàlla sunu boroom ba jant bi soo loolu lu ko gën a màgg amut tey loolu ku mënta def dara ci yow def dara du yomb ci yow kon nag loolu rek la bëgg ci noonu kon nag ñu itam ñu góorgóorlu te laxasaayuwaat baax a baax rek te delloo suñu bopp ci démb delloo suñu bopp ca mag ña te xamit liñ tax a jóg xamit li ñuy sàkku xamit li ñu sëriñ bi bëggal ndax li ñu ko bëggal bëggal kat noo maanaam pas-pas sàkkuñ ko suñu bopp waaye bu ko bu ñu ko bëggalee te amuñu pas-pas dox jëm ca it moom moom dana ko jariñ ma waaye noonu du ñu amal njariñ kon li ñuy jariñ mooy lim nu bëgg nu xam ko te fas yéene fekku rek jëm ji ndax lu baax kat ku la ko yombalal ku ne moo la ko xañ te xaw a dee rek ak coono bu métti mooy ko moo koy tax am kon nag yàlla nañ sama borom tayal boppam te sàmmal nu boppam ba li sëriñ bi bëgg ci noonu nu mën koo amee na mu ko bëggee ci barkeb sëriñ bi jërëjëf. damaa ñoo xam ne ñun ñëpp ay Baye Fall lañ te Baye Fall buub moom daa bokk ci liggéey bi te barab bi daa sell suñu soo mbar ni nañ simi dàll ba bam ma jàpp ni mën naa see jaamu yàlla rek may for mbalit mi ak kaas ak AGT yi ak lépp loo am daal mbalit nag nga xam ne barab bi buñ fi juyee rek jarul for loolu daal lañ jaayante di doo liggéey doo def ngir jëmmi sëñ Fallou waaw loolu daal. jëfi tey jii yan kàddu nga ciy wax ci ndigal li tey jii ak zikrulaa bi. ndigal li sant suñ borom rek sëñ Mountakha mënuñu koo fay ñu sëñ Moussa Mbar rek ñu jiital si lépp turu yàlla bi ak salaatu ala nabi ak xasida yi ak alxuraan yi ñuy jàng li si jiitu yàlla na ko sëñ Mountakha Mbacké wér yàgg te wér ak sëñ am di Modou Mbodj Fall ak njaboot sëñ Tuubaa yëpp ak jullit yëpp sëñ Muntaxa daa bëgg a dimbale jaam ñi rek loolu képp a tax te yërmande mu dawal ba ajuma bu jot woote wut ko mais lii jaroon na ajuma bu jot ñu woote ko mbar sëñ jëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf maam Seere Fall lépp mooma waaw di sant sëriñ Tuubaa bu baax rek ñu ngi ci ab yëg-yëg boo nga xamante ni nii ñu ngi ciy sant sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndax lii moom nag la nga xamante ni da koo woote ne kaay leen jël kaay leen jël nag ku di Baay Faal ku nekk te man cee teew nga ñëw teew ci muy li gën. di sant Cheikh Mountakha di ko ñaanal sama bopp yàggal ko fa te wéral ko te xam ne liggéey bii liggéey la boo xam ne bu ñu bu ñu bu gërëm la bu ñu nangu la waaw liggéey la boo xam ne nii bu suñu borom gërëm la bu mu nangu la ñu ngi ñaan sama borom guddal fanam yàgg waral ko fi lool yàggal fi am di moo di mbor mi nga xam ne jox di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi rek te wér. ku ne doolee góorgóorlu rek te xam ne Baye Fall moom jub rek a ko war yàlla nañ yàlla dimbali daal ban mën a jub. Euh, bis bi moom dañ ciy sant yàlla bu baax ndax bis la boo xam ne Cheikh Mouhamadou Muntaxa da cee bëgg a jaam ñi ndax li ne ci biir moo ko xam ñun xamuñu ko waaye nag ñu li ñu xam mooy ñu sant ñu digal ñu jëf ndax loolu mooy suñu njariñ waxtu boo xam ne ndigal ñëw na ci ñun rek. Euh, sunu euh, maanaam man na ne sunu euh, mooy defar sunu mbir maanaam li ñuy dundal daal nga xam ne mooy ñuy dundal mooy dundal sunu ruu mooy ndigal moo tax saa bu jógee sëriñ ñëw si ak nu mu ñëwee rek moo ñuy dimbali rawatina nag bis mel ni nga xam ne day wax si karula boole koog jàng xasida ak ak ak alxuraan da cee rawate waaye ñu waxtu wu ne ndigal rek la ñuy kon saa bu ndigal ñëwee rek man na ne la ñuy dundal ñu ngi ci maanaam moo ñu suuxat dinaa euh, ba loolu jàllee euh, lii day pas-pas boo xam ne fi lañ ko fekk muy pas-pas boo xam ne pas-pas Cheikh Rafal ak Serigne bi pas-pas boobu nag dañ ñu koo batale dañ ko war a sàmm bu baax sàmm gi nag mooy li wax léegi rek saa boo xamee ne ndigal jóg ne ñu takk suñu laxasaay fas fas yéene sëñ bi li mu bëgg sëñ bi jëf ndax ñun amuñu lu du sëñ bi digal ñu jëf loolu mooy mooy mooy mooy suñu mbir sëñ bi diglee daal lay suñu ndam ñun mooy ñu def loole nag ci la nekk nii bis la boo xam ne nag mën naa defar adduna bépp waxuma la Sénégal waxuma la Touba waxuma la Mouride waaye adduna bépp ba xaj nañ ci biir ndax lépp aw yiw la yiw la woo xam ne Seex moom mun taxaa bëgg koo dimbale jaañe moo tax mu def sandaane ñaari ajjuma yi mooy ji jàll ak jotaay yi nan ko nan ko sikkar ni mu jëkk sikkaru laa wala wala sikku lay akbar alxuraanu ko li gën a màgg si li génn si li doomu aadama def mooy mooy sikkar teg alxuraanu karim teg ci xasida te yooyu moo fi nekk ak ak ak tëb si ndigal nag ndax loolu lépp su nekk si ndigal la ñu tënk mooy mooy mooy jóg leen defi ñu dem defi loolu mooy mooy mooy ñu jëriñ ñun kon nag ñi sant yàlla bu baax di gën a fedd suñu laxasaay di sant sëñ Jaxwal ndigal mi nga xam ne mooy suñu jëriñ yàlla dogal ma ji yéen yàlla eh, ñoo ko bokk nekk ànd ko moom si si gàtt ak yëpp tey jii yàlla dogal na mu wutu nag waaye teewul yónnee na fi ay ay xéewal ko na sa dilifee léegi ay berne am na yéen war a yoo xam day ñëw am daa dëkk nga xam ne mooy bundam yónnee na fa ay berne kon nag alhamdulilah yàlla ñu sëñ bi nangu liggéey bi defal ñu ci jaamu yàlla gu nangu ñu ko sama borom waxee defal ñu gërëm sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall defal suñuy mbir fii ak ko jëmale si barke Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf yàlla suñu gol dimbali ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek ci euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne nii bay Fall yi ñu ngi koy taxaw fii ci euh, jullikaayu it bi ñu ngi sax ci biir njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp teew taalibe yi ñu ngi zikkër noonu ngeen ko déggee ñu ngi toog ak Serigne Moustapha Fall Mbar bokk ci njabootuk Serigne Amdi Modou Benda xalif général des Baye Fall moom sax moo ko fi teewal kon sëriñ bi ñoo ngi ziar di ndokkeel ci ndigal lu am solo li nga xam ne ni tey jii tabbiwaat na ci bunti kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall gépp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp tey jii ngeen koy taxawu taxaw bu mucc ayib yan kàddu ngeen ci àddu jëmale ci. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké. mi fi nekkal sëriñ Touba euh, di siyaare itam Serigne Amdi Modou Mbend Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di siyaare bu baax di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanalit it ñoom ñaar ñu yàgg fi te ndax bu ñu fi yàggee te wér rek sunuy xéewal la ñun murit yi kon nañ leen ñaanal ñu yàgg fi te wér ndax lii nga xam ne bii moom lay santaane muy tur sikrullah Baay Faal yi dong moomunu ko murit yëpp la ko sant kenn ku nekk rekk am nga ci wàll murit yépp la ko sant dafa tolloon nag Baay Faal moo saxoo turu yàlla moo tax mu jaarale ko ci ñun waaye ku yaakaar sëriñ Touba ci nga bokk ci bis bii nga bokk kon nag na ci teew te fas ci liñ bi ndax lii kat li ci sëriñ bi jublu moom moo ko xam li ci sëriñ bi jublu moo ko xam sunug defaru rek la bëgg defarug adduna ak defarug alaaxira ñaan ci sëriñ bi itam mu may nu nawetub jàmm loolu rek la sëriñ Muntaxa bëgg lim bëgg ci turu yàlla wii mooy lépp luy ay jóge fi luy jàmm rek ñëw fi loolu rek la sëñ bi doon ah, wax ñu ngi jottali taalibe yëpp cantuk sëriñ am di ci mbooloo mii ndax kat bañ déggee woote bi dafa mel ni kenn ku ne yaa ko moomal sa bopp ndax li fi daje ci mbooloo tey bari na lool kon nag noo ngi ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ndax lii mu fi santaane kat sunu njariñ la lañu ñu gënaloon sax te ñu bëgg ko mooy sëriñ bi wutal ñu bis bopp saa yuñ ci yeggatee rek kenn du ñu soññi waxtu wuñ ci yeggatee rek kenn du ñu soññi dañ koy daal di xam ba at mu jot rek ñu def ko ndax lii kat xéewal la xéewal la bu jëm si ci ñun rek kon nag bu ñu sañoon at mu jot ñu def ko ñaari yoon mbaa ñetti yoon ndax lu nu lu nu dimbali dong la kon nag nu ngi leen di sant yéen itam إلي قاد الله يوم الجمعة مالي من باخ خديم جماع ملكني الجامع يوم الجمعة مالي وحدي اختاره وجماع ملكني الجامع يوم الجمعة مالي وحدي اختاره وجماع